jërë ngeen jëf mbokk safo ak bàyyi xel M4 TV ñu doore xibaar yi ca diwaanu D-Média ak élément section de recherche bu gendarmerie ñoom nag daal dinañuy dem ngir teg loxo Pape Moussa Traoré nekk directeur de publication journal Tribune ginnaaw bi mu defee ay révélation sur les motivations yi nga xamante ne moom moo waral limogeage ak affectation générale Kandé ca diwaanu Inde bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di tribune moom nag mi ngi fësal ni premier ministre dafa bëgg rompre accord militaire yi ak ca diwaanu États-Unis Canada ak Royaume-Uni ak itam réew mu France nouvelles autorités yi nag dañu bëggoon jënd système d'écoute de manche et d'espionnage bu ñu sukkandikoo ci africain confidentiel point com ba léegi mi ngi ci waaye itam système bi daf leen permettre ñu am écoute ci application yu mel ni WhatsApp Telegram Signal ak yeneen application yi nga xamante ni sénégalais yi dañ koy utiliser loolu nag moom moo waral Pape Moussa traware directeur de publication bu Tribune Quotidien du groupe des médias euh, ñu daal di koy teg loxo